mangi sante yalla di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yalla mu dolli ko feewal ak mucc moom ak njabootam ak saxaabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam ba dina tukki bokki yi noo ngi nii ci mujjug koor ba tax nu wara li ci dess nu war ci farlu ci luñ ci daan def ci lu baax lu ne ni ñu ko waxe won rek ci khutba bi wessu war nanoo ba itam di dàkk laylatul xadr ni ko ni nu ko yonent bi sallallahu digale woon li mu digale woon nu koy dàkk ci fukki guddi yu mujj yi kon li ci des itam nan ko nan wéy di ko ci dàkk waaye am na jeneen farata it jun war a bàyyi xel ci jamono jii war koo waajalit te mooy li ñuy tudde muurum koor muurum koor farata la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko farataal bi mu koy farataalit dafa am njariñ yu ci nekk am na ci njariñ lool day dellu ci ki koy génne am ci lool day dellu ci nit ñi ki koy génne lay njariñam mooy lu mu defoon ci koor gi ci ay rëcc rëcc ak lu ci des loo xam ne matul daal bu génnee murum koor mën naa tax yàlla mottalil ko ko lu ci amoon ci ay sikk yàlla man koo man koo defaral sikk sikk soosee li dellu ci kiñ koy jox nag mooy kiñ koy jox dafa bokk ci jullit yi te bisu ko yi doon bisub ayit mooy feet bisub feet bisub feet nag jullit ñëpp a ci war a bokk te koo xam ne loxoom jotul ginnaawam bu fekkee taxawuñ ko ci bis boobu ak bokk bokkam ci fete gi dana dess yonent bi yonent bi dafa bañ nit ñi ñu seen loxo jotul seen ginnaaw bisub fete ñëpp wara fete ñëpp wara bekk day bañ bis bobu ñom ñu nekk ci di ci ñaan ak a yalwaan ak laaj ibnu abbas bi mu nuy nettali li yonent bi farataale murum koor da ca wax lool dana yonent yonente bi sallallahu alaihi wasallam dafa farataal murum koor ngir muy laabal ci doon woor mooy lu mu def ci ay rëcc rëcc bu génnee muurum koor mën naa tax yàlla laabal ko ca loola waaye mu doon itam lu ñin ñin koy jox mu doon loo xam ne dana leen féete fenn ba ñu mën a bokk ci feet gi ni ci ñëpp yi bokkee ba ñu nekk di wër di ñaan ak a laaj ci feet kon muurum koor lu am solo la waaye nag dafa mel na ñu bari ci nit ñi joxuñ ko àq ji mu yeyool teguñ ko fañ ko war a teg te moo ne la te moo itam lu am njariñ la ci kii ko génne ak kiñ koy jox muurum koor nag sartuñ ci nit ki doon kuñ naan dafa am dafa woomal sartuñ ci loolu waaye bisub kori bi rek bu fekkee am na ci dépense bis bi rek dépense bisub kori bi rek bu ko amee lu ca dolliku rek da caa war a génne muurum koor kon bokkut ak asaka asaka moom nit day dañ koy jàppe ku am mu door a war a génne asaka bu dee muurum koor nag duñ duñ loola bu amee rek bis bi bu ci amee dépense am rek lu ca dallu da caa war a génne la muy génne it mën nañoo jàpp rek ne ñaari kilo ak genn wàll lay doon bu dee fu mel na fii ñaari kilo ak genn wàll ci ceeb génne wala mu génne njëg gi njëgul ñaari kilo genn wàll ci ceeb génneel ko boppam génneel ko képp koo xam ne dundal ko moom la wax jox ko nag ku ko yeyoo ku ko yeyoo mooy ku aaj ku yeyoo ndimbal ku yeyoo ndimbal lañ ko jox buñ tollee fii it war nanoo xalaataale bu koor gi jeexee mu xam ne li nit ñi tudde gunge gunge koor gi loolu yonent bi sallallahu sallam moo ko moo ko santaane moo wax ne ku war weeru koor ba mu jeex weeru koor yi itam nga woor ci juróom-benn fan ku ko def day mel ne woor na dundam gépp ku ko saxal saa bu wooree weeru koor ba mu jeex weeru koor yi mu woor ci juróom-benn fan moo xam tegaloo na moo xam tegalowut waaye daal bu mu génn weer wi day mel ne woor na dundam gépp kon war na noo itam bàyyi xel loolu buñ tollee fii tam war na noo xalaat ne li nu doon jéem ci weeru koor bi muy di jéem a yokk jëf yu baax di jéem a gën a daw ab safaan bu ñu waree it dañoo war a jéem a wéy ca loola daa war doon ab yóbbal bu ñuy jëlee ci weeru koor bi mu sax ak nun nuy sax ci jéem a yokk lu baax di sax ci jéem a ab safaan non ñaan yàlla kon mu dimbale nu di des ci mu dimbale ba nu woore ko ni mu ko bëggee guddi itam mu dimbale nu ban dundal ko donc ñaan mu defal ñu waat nag àllaaxira musal nu ci sawara sàmmal nu sunu ngëm ubbi nu buntu yiw yi soob nu ci yoonu njub mattali sunu mébét yi may na kon gudd ak wér ak mu rafet